moo ñu dajale fii tey nag mooy li nga xam ne moo ñu fi baaxoo dajale bu nu tolloo ci di waajal tabaski te mu doon sunna soo xam ne nii dafa war ci képp koo xam ne nii ab jullit la as la te man na ko mu am ci yoo xam ne dañ koo sopp ci bisu tabaski yi bokk na ca nag muy ay yu yees ci ku ko man tabaski léppam sunna la wa man yarxabu an millati ibrahima ila man safia nafsa loolu moo waral nag ñi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi wax at mu jot ñi nga xam ne ni yàlla xaw na xaw na leen koo man loo ñu gestu seen bokk yi nga xam ne nii ñoo nekk ci dëkk bi te seen suñu boroom def seen loxo jëlu seen ginnaaw ndax li ma waxoon rek dëkk bi dëkkub sunna la wa daara sunnatin wa man jan bin bi tax loolu la suñu boxoon waccal binaa iya binaa xilmi wa xamali bi sunnatin wa xilmi loolu noonu ma waral ci yëre yi nga xam ne nii moom lañ baaxoo laaj muy yëre yu yees yoo xam ne danañ ko mën a jottali suñu bokki taalibe yi bañ ko tàmbalee dañoo woowoon association tailleur ci njiital Serigne Mbaye Sarr ak association bi nga xam ne mooy CMD ci njiital Serigne Baye Ndiaye ak association centre euh, Mbacké marché central ci njiital Serigne Xaarim Sow ñoom nag jëloon nañ fi ay yére ñaari rund yu toll cinquante cinquante cinquante morceaux yan yi ay bassin la yenn yi nekkoon ay super 100 ñawoon nañ ñu lu toll 468 pièces yoo xam ne ni yére yi mi ngi tàmbalee zéro ba quinze ans gone gu amagul at ba keroog ngay am fukki at juróom ñëwoon nañ ci yërey góor yi tamit lu tolloog 669 yërey góor kon li nga xam ne moom la tailleur yi ñaw mi ngi toll ci 1137 ñëwoon nañu junni yére ak téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar yoo xam ne nii ay yérey góor la ak yërey jigéen te lépp tamit yu yees la li nga xam ne suñu bokki taalibe yi ñoo ko dajale muy ay yëre yu yees yoo xam ne dañ koo ñaw ba noppi indi ko loolu lim bi xaw naa takk waaye dañuy ñëw ci li nga xam ne moo fi dajale lépp li nga xam ne moom lañ am ci ay yére li nga xam ne moom lañ am ci ay yére yu góor yoo xam ne yére yu góor la ñu ñëw ko ba mu sotti mi ngi toll ci 2544 ñaari junni yére yu góor ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak ñeent li nga xam ne moom lañu am ci ay yére yu jigéen yu ñëw ba noppi mu ngi toll ci 19182 maanaam fukki junni ak juróom-ñeent ak juróom junni ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar li nga xam ne moom lañu am ci ay yërey xale xale yu góor ak xale yu jigéen mi ngi toll ci 6956 juróom benn junni ak juróom ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn am nañ fi itam lu tolloog ay dàll lu tolloog 917 dàll juróom ñeenti juróom ñeenti téeméeri dàll ak fukk juróom ñaar am nañ itam ci ay rido lu tolloog 132 téeméer ak fanweer ak ñaar am nañ itam ci ay écharpe muy col yi nga xam ne moom la ji suñ suñ mbokk soxna yi tegoo lu tolloog fukk juróom benn am nañ ñett serviette am nañ lu toll ci ay tiisi yoo xam ne dañ koo ñëwagut am nañ ci lu tolloog 601 juróom benn téeméer ak benn ay dara muy dara bi nga xam ne dañ koy lal ci lal yi am nañ ci lu tolloog 80 juróom-ñett fukk ay takkaay tamit am nañ ko fi am nañ fi tamit lu tollook tolloog 27 morceaux saabu ak benn parfum ak lu toll ci juróom fukki saak amee ak benn li nga xam ne moom lañ dajale ci ay yére ci bis bi may waxee jëmb ci guddi lu tolloog min wi liñ jotoon am ci ay yére mi ngi toll ci 28 682 juróom ñaar ñaar fukki junni yére ak juróom ñetti junni ak juróom benn téeméer ak juróom ñett fukk ak ñaar mooy li nga xam ne moom lañ dajale ci ay yére yoo xam dañ koo ñaw ba noppi bokkul nag ak yére yi nga xam ne ñëwagul yére yi ñëwagul moom am nañ ci lu tolloog juróom benn téeméer ak benn lii nag bokkut ak li nga xam ne moo fi ñëw tey nga xam ne bu ñu ko doon takk daal lu mu néew néew liñ am ci ay yére yu ñu war a séddale ëpp na fan fanweeri junni yére loolu nag bu ñu ko comparé ak daaw day mel ne bu bi doublé na bu daaw bi ndax daaw ñu ngi amoon treize mille cent trente neuf yére la amoon juróom fukki junni ak juróom euh, fukki junni ak ñett ak téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent moom la amoon daaw loolu nag day mel ne suñu borom noonu la baaxoo jëflantee ak sëriñ bi li ma waxoon rek ne tayam ju nekk gàccaal na démbam ëllëgam ju nekk dana gàccaal tayam waaw mbir mi moom ni ñu koy distribuer comme ni commission sociale baaxoo distribuer rek lu lépp lu muy séddale mooy xool ñi nga xam ne ñoo ko gën a yittewoo ñi nga xam ne ñoo ko gën a yayoo ñu dem jox leen ko loolu nag niñ ko waajalee niñ ko ni ko sëñ bi tuddee mu nekk nii ay mbuus ñu waajal ko mbuus bu nekk fi nekk nii def nañ ci fukki yére am na yére góor am na yére jigéen am na yére xale am na yére yëpp ngi ci biir ñu waajal ko muy fukki yére niñ ko baaxoo séddalee nag dañu def dem ci quartier yi waajal nañ ay oto yoo xam ne dañuy tànn ci sancaan yi ñi nga xam ne ñoo ko gën a yittewoo ñu sarse def délégation benn bu ñu nee ba ca quartier ba oto yi tasaaroo dugg ci biir quartier bi ñuy jël pari mbuus fekk ndaw yi am Pastef yi nga xam ne ñoom la ñuy àndal liggéey bi la ñuy ñu dugg ci biir karce bi jël ay mbuus waaxu ba ci kër laaj borom kër gi mun ne ko mi ngi nii ñu yëkkati mbuus gi teg ko ci loxoom moom moo xool na koy séddalee ak waa këram noonu lañ koy séddalee yére yi li muy bari bari bari yëpp nekkul nag ne dañoo woo nit ñi naan nañ ñëw ca sees ba wala nañ ñëw fi ci magasin bi jël si déedéet dañuy dem fekk nit ñi ci yi di leen ko séddale noonu la ñuy ngeen def ba xam ñu ko yeeyoo waa niñ ko xamee ndax jamono ji nekk dañuy def ay visite de terrain ndax boo gisee lim bi nga xam ne sëñ bi tudd na ko ñoo xam ne dañuy sàkku ndimbal ci wàllu faj am ñoo xam ne dañuy sàkku ndimbal ci dëkkuwaay am ñoo xam ne ñu ngi sàkku ndimbal ci seen néeg yu seen am ñoo xam ne amuñu ay wanag déplacement yooyu nga xam ne jamono yu nekk commission sociale ak Touba ci kanam ñi ngi génn di dem di fekk nit ñi moo tax daanaka lenn lu ci nekk xam nañ fa mu gën a méttee donte kon xam euh, ñu bari yittewoo nañ ko waaye xam nañ fa nga xam ne ñu bari ñu ko gën a yittewoo fa lañ nekk foofu la ñuy sukkandiku ndax fu mu doon ci quartier yu wute dem nañ fa lu ëpp fanweeri quartier ak juróom bu dee ci ñi nga xam ne dañoo dañoo dañoo wéradi dem nañ fa waaye ci ci benn mois bu rek laa laa wax ñi nga xam ne dañuy sàkku xadd dem nañ ci ñoom 18 quartier ñi nga xam ne dañuy sàkku ay ay ay wanag dem nañ ci ñoom fukki quartier ak ñaar yu bokkul te jamono ju nekk ñi ngi gën di dem ci quartier quartier yëpp la ñuy dugg ya gën a sori ba ci yi gën a jege moo tax moom ñi ko gën a yittewoo moom commission sociale xam na leen bu baax baax waaw bu ko defee nag kon ñi ngi li jaajëfal mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi jàpp ci liggéey bi rawatina nag suñu mbokki téer yi suñu mbokki téer yi ak diaspora bi suñu mbokki téer bi ak diaspora yi ak waa presse bi nga xam ne tamit fu liggéey bi ak yéen ko fa àggale ndax ngi jot li communication ba nit ñi yëg ne liggéey bi xam tamit tolluwaay bi waaye ngeen di taxaw fu ngeen toll di wane fi nga xam ne li ñuy liggéey fa lañ koy dugal ndax dañoo wax laaj luñ am def ko fuñ xam waaye xamle gi moom yéen waa presse bi la yéen ay xamal nit ñi li nga xam ne ñi ngeen koy jox fañ koy dugal kon ñi ngi leen di sant waaye di sant suñu mbokki soxna yi bu baax a baax a baax a baax bàyyi wuñ kenn waaye ñu ngi santaat borom kër gi ak di santaat borom kër gi nga xam ne moom lañ jàkkaarloo muy sëñ Talla Fall nga xam ne bi magasin bi feesee démb ci guddi bagage yi ñëw amuñu ñu dem bi ñu demee di wax waxi luyee dañu jox na ko sëñ Touba aal nañu ko nga xam ne fi ne bagage yu bari àggagu leen fa waaye ma nga fa ñu ngi koy sant bu baax di ñaan suñu borom yokk ko kattan téer yi nag xam naa jataay bi xat na moo tax mënuñu tudd ci lim waaye muy téer yi Touba ci njiital sëñ Mbaye Sarr muy téer yi ci ci kenn daal liggéey bi rafet na set na ndax defe nañ ko yéene ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah